sëriñ muhammadul faadal mbàkke sëriñ muhammadul faadal mbàkke mi ngi gane àdduna ci atum 1889 ci dëkk bu sell bii di daaru salaam ci bëccëgu àjjuma ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi di weeru rajab ci atum 1306 ci gàddaay gi dëppoog muy vendredi 29 mars 1889 di doomu ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim ak ku ñuy wax soxna awa buso moom cheikh mamadul faadal mbàkke bi mu feeñee jamono ci atum 1306 ci gàddaay gi dëppoog muy 1889 ci at moomu di atum tubaab bi waajuram xaadim rasuul ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam la ko duppee mu jël tur wii ñu tuddee muhammadal faadal am na nag ñu bokkal kii di soxna awa buso mi waajuram wu jigéen ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna mariama kunta bintu soxna awa busoo bintu xaadim rasuul ak ku ñuy wax soxna maam faati mbàkke bintu soxna awa buso bintu xaadim rasuul ak moom cheikh mohamadul faadal mbàkke ibnu xaadim rasuul ibnu soxna awa buso waaye nag lu ko jiitu waajuram wu jigéen wa di soxna awa Bousso nekkoon na ci dëkk bu ñuy wax aafe ci jolof ci ku ñuy wax sëriñ Abdou Kumbaan Mbàkke ñang moom mi moo njëkkoon a dëkkoo soxna Awa Bousso ba tax na am naag soxna Awa Bousso benn bant muy ku ñuy wax sëriñ aafe ñan sëriñ aafe ñang mi nag moo mag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke soxna Mareema Kunta ak kii di soxna Maam Faati Mbàkke kon ñaar la bokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor ak moom muy ñett ak kenn kum bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur góor muy sëriñ aafe ñang karim waajuram xaadim rasul moo ko dalal alxuraanul karim moom magam ja cheikh mamadul moustapha mbàkke ci péncum sëriñ soen bu mbàkke ginnaaw bi nag la leen fab jébbal leen sëriñ ndaam abdourahmaan loo ci ndaam daaru xalimul xabir ñu wéel fa seenum njàngum alxuraan laataa ñuy mokkal alxuraan ci loxoy sëriñ ndaam abdourahmaan loo sëriñ tubaa seexul xadim bàyyikoo na ci dëkk bu sell bi di tuubaa dem mbàkke baari jolof keroog bi muy dem mbàkke baari jolof yóbbaale na leen ci dëkk boobu di mbàkke baari jolof ci diirum ñeenti weer yam fa def fa ci dëkk boobu itam la dem ci géej gi ci atum 1895 keroog bi muy dem ci géej gi ñaari doomam ya fa nekkoon mooy Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ak Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke bi Seexul Xaddim di tàggatoog maam Cerno Ibrahima Faati mbakke ndaamal daaru ñaar ñooñu ña nga fa mu dénk leen maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru dem ci géej gi waaye nag maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru jëlaatoon na Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ak kii di Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ñu wéel seenum njàng ci loxo Sëriñ Daam Abdourahmaan Lo ba mu doog leen a leen lii di xam-xam moom maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru ci loxoy maam Thierno nag lañ nekk ba ni Serigne Seexul Xaddim ñibbisee ci géej gi laataa Seexul Xaddim nag di ñibbisi ci géej gi jot na seen kaamil alxuraan bu koy seedeel na ñaari doomam yët di Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke ak kii di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bind nañ kaamil bi ginnaaw bi itam maam Thierno jël na ñaari doomu Seexul Xaddim yooyu yit leen magam ja maam Mor Jaara ngir mu saytu seenum njàng ba xam wér na waaw wala déet ndax kat booba maam Mor Jaara kat képp ku mu xool sam njàng ba ne kenn mënatu cee wax dara te noonu itam ni la ko defe ci ñaaru doomu xaadim rasul yooyu ne macha allah seenum njàng wér na ñu wéy nekk ci loxoy maam Thierno ba ci atum ci fukki fan yaak benn ci weeru novembre woowu xaadim rasul wàcc nag ci waaxu ndakaaru yi ñaari doomu seexul xaadim yooyu di cheikh mamadul faadal mbàkke ak kii di cheikh mamadul moustapha mbàkke nag def nañ comme ni ko mag ñëpp defee giseeg seen waajur wa xaadim rasul ca fukki fan yaak ñett ci mois de juin ci atum 1903 lañ ko jëlewaat ci di gànnaar gànnaar demee laataa mu fay am at laaj luwaat na ñaari doomam yi di cheikh mamadul moustapha mbàkke ak cheikh mamadul faadal mbàkke ngir ñu fekk si ko ci dëkk boobu nag di gànnaar gànnaar googu nag seexul xaddim boole woon ni leen nag naar ya fa nekkoon ngir ñu jàngal leen nag lii di xam-xamu arab ba tax na cheikh dul faadal mbàkke ak cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh masamba mbàkke ak sëriñ ma roqee buso ak yeneen tuut tànk ya fa nekkoon gën nañoo giiju nag ci wàllu arab ñu wéy nag nekk gànnaar googu ci seen loxoy waajur xaadim rasuul ba ni fa seexul xaddim bàyyi ko ci de juin ci atum 1907 ñëw nag ci résidence surveillée baneen ci ca yéen jolof ca yéen jolof itam nekkoon na fa ak seexul xaddim ba ci atum ca yéen jolof googu sax la ñuy doog a baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ngir nekku murit ndax dafa am biskat seexul xaddim woolu leen moom cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke sëriñ moo roqee buso ak kii di sëriñ masàmba mbàkke di leen xamal ne man xaadim rasuul de aw ma jarbaat ndax loola kat sëriñ moo roqee ma rakk kii di sëriñ masàmba ma doom cheikh mamadul moustapha mbàkke ak kii di cheikh mamadul Abdoul Fadal Mbacke moo ko moom mu leen di xamal ne li fi nekk daal liggéey moo koy maye képp ku liggéey suñ borom dana la fay nga mën a am ci li ma yor waaye nag képp koo xam ne nii liggéeyoo bëgg maa jàppeem nijaay wala nga bëgg maa jàppe mag wala nga bëgg maa jàppe waajur da ngay sonn rek waaye li fi nekk moom liggéey moo koy maye ca booba nag la ñoom ñeent ñoo ñooñu jaayante nekku murit kon ca yéen jolof lañ nekke murit ba tey ca yéen jolof googu nag la leen seexul xaddim sampale kër cheikh mamadul faadal mbàkke sëriñ tubaa seexul xaddim boole ko ku ñuy wax soxna assuloo sëriñ ndaam abdourahmaan loo la ak ku ñuy wax soxna aminta mbàkke soxna asuloo moomu nag la cheikh mamadul faadal mbàkke njëkk dëkkoo ci wàllu kër soxna asuloo moom itam di doomu sëriñ ndaam abdourahmaan loo moom meññ taawub cheikh mamadul faadal mbàkke bii ñuy wax soxna mbeen mbàkke faliilu loolu moo waral turu cheikh mamadul faadal mbàkke wi ñuy wax galas baayu mbeen mu wéy nag nekk ca yéen jolof googu ci loxoy waajuram xaadim rasuul ba ci atum 1912 njaareem googu itam àndoon nañ fa ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim nekk fa ak moom waaye yàgguñu fa dara ginnaaw bi nag la leen seexul xaddim jooga jox ndigal mook seex mamadul mustapha mbàkke sëriñ masàmba mbàkke ak ñeneen a ñeneen di leen wax ne nag ñu ñëw ci dëkk bu sell bi di tuubaa nekk fi tuubaa googu nag bi ñu fi nekkee cheikh mamadul faadal mbàkke bindoon na fi nag ak xasida jagleel ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ngir di ko wax ne kàddu yag ma waxoon ci yéen jolof de moom laa fas yéenee jaayante ngir fas yéenee nekk nag murit bu dëggal ci sa ginnaaw boole Tuubaa Seexul Xadiim di ko wax ne sama jaayante moo nekk nii man ngi koy wax ne ci biir way yi fob naa sama njuréel jënde ko ak taalibe boo jotee nag ci jaay gi may jaay sama juréel ngir jënde ko ak taalibe njëg googu nga ma fas yéene woon na jox nag delloowaat naa la ko àddiya waaye jox googu ma la ko jox àddiya nag nekkul nag lu may puukaroo wala di ko tiitaroo ñu teewlu way yi Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke bindoon ngir jaayante ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñu teewlu way yi yaa ayuha cheikhu nafisul murtaja yaa fatihan ma xablu kaana murtaja bi'tu bil iraada lakum likay axdaa bi xarqi aada min bacdi mastaraytumuuha minni ahdaytuha lakum bi gayri manni faltaqbaluuha yaa malaadu kurima laa siltum bayna albaraaya ulima bijaahi maxduumika almufaddali xayri al awaaxiri macan wal awali salla alayhi rabbuna wa sallama wa aalihi wa sahbihi wa karrama loolu mooy way yim jaayante woon ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim fa bu njureelam jënd kook taalibe moom cheikh mamadul faadal mbàkke ci atum 1913 Aziz waajuram xaadim rasul sancaloo na ko ab dëkk mu tudde ko ndindi ba tax na sax ci turu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke yi am na ñu koy wooye boroom ndindi mu wéy nag nekk ci dëkk boobu di ndindi di liggéey di yar di jàng ak di jàngale comme ni ko yoonu murit baaxoo defee ginnaaw ndindi ci atum 1913 sanc na dëkk bu ñuy wax Touba boobu réel ci atum 1930 sanc na dëkk bu ñuy wax Madina Mbooba ci atum 1938 sanc na dëkk bu ñuy wax Xaayaan ci atum 1948 sanc na dëkk bu ñuy wax Touba Mérina ci atum 1952 sanc na dëkk bu ñuy wax Nayrul Maram ci atum 1959 gor na fii ñu tuddee Aliye ci Touba ci atum 1961 sanc na dëkk bu ñuy wax Touba Souran ci atum 1964 sanc na fii nekk ci Touba di Xayra ci atum 1957 sanc na dëkk bu ñu wax Touba Bogo ci atum 1962 Touba Bogo googu sax ginnaaw bu mu ko sancee goraat na nag lu tollu ñeen fukki daara ak ñeent taalibeem bu dëggal ba di sëriñ Moodu Xabbaan Mbàkke moo gor ñeen fukki daara yooyu ak ñeent ak yeneen ak yeneeni bërëb yu Cheikh Mamadou Mouhamadoul Fadal Mbàkke gor ginnaaw bu mu goree dëkk yooyu mu gor di madinatu mbooba ci atu 1938 ak dëkk bi mu tudde madinatu salaam bindoon na ay way jagleel ko ñaari dëkk yooyu ma ngay wax ci biir waye di ñaan suñ borom buur bi tabaaraka wa taala di ko wax ne képp koo xam ne nii mi ngi liggéey ci dëkk boobu di bépp ak madinatu salaam yàlla nga leen fay ngeen gi fay te itam yàlla nga leen defal xéewal ci dëkk boobu di bépp sama dëkk bi nag di madinatu salaam yàlla na nga ko aar ci dara jëy turam woowu di salaam yàlla na nga ko yiir ña fa nekk itam yàlla nga leen sàmm mook sama dëkk daal di bépp ñu teewlu way yi Cheikh Mamadou Fadal defoon ci ñaari dëkk yooyu di madinatu salaam ak madinatu mbooba yaa rabbana anis si xaadimi bépp xayral jasaa'i wal muna lahu hëb wal tajcalan daari madinata salaam madinata salaam yaa rabbal anam faxfadhuma bima xafisa alxaramayni wa tayiban quutahuma fi kulli xiin wa kullu man qaddama fiha aw sacaa fa najjihi wa baarikan fi ma sacaa jarra lahum fi kulli shayin nafca tuwattiruhum makaanuhu jacal shafaa wala tuaaxidhum bima asaa'u yaa xaadiran yafcalu maa yashaa'u is kullu shay'in wasaatahu rahmatak awsacu min zunubina magfiratu waaye yooyu la defoon ci ñaari dëkk yooyu mu goroor mu wéy nag nekk nag ci dëkk bii ko seexul xaddim dëyaloon di ndindi ba ni seexul xaddim génnee àdduna ci atum 1927 mu jël léppam nag jébbal magam cheikh mamadul moustapha mbàkke di ko xoolee xaadim rasuul cheikh mamadul moustapha mbàkke tim jël rakkam jooju di cheikh mamadul faadal mbàkke mbàkke di ko xoole xaadim rasuul ba tax na ñoom ñaar balaa kenn def dara tàggu sa moroom ñu nekk nag ñaar ñu wegante ndax kenn ku ne xaadim rasuul ngay xool ci sa moroom ba tax na bi ñuy taxawal lii di jumaay tuubaa mu cheikh mamadul faadal mbàkke mi ngi féete woon cheikh mamadou moustapha mbàkke ci dëkk bii di ndokk ca xeer ya mu nekk nag murit bu dëggal ca xeer ya mu wéy nag taxawu cheikh mamadul moustapha mbàkke lu mu am jébbal magam ja cheikh mamadul moustapha mbàkke ngir seen bëgg-bëgg waajur woow di xaadim rasuul bi mën a am muy jumaay tuubaa ji ba tax na yeneen dëkkam yi mu gorite mu nekk fa di liggéey lu ñorite mu yit magam cheikh mamadul moustapha mbàkke ñu nekk ñaar ñu bëggante mook cheikh mamadul moustapha mbàkke ba tax na doomam ji a wuutu di sëriñ moodu moustapha mbàkke falilu cheikh mamadul moustapha mbàkke moo ko tudd mbàkke ba itam di taayif ginnaaw ba ko cheikh mamadul moustapha mbàkke goree ci atum wor ma jum amoon ci cheikh mamadul faadal mbàkke ginnaaw bu cheikh mamadul faadal mbàkke seet see dëkk boobu di taayif la ko cheikh mamadul moustapha mbàkke ne ko sama dëkk bii di taayif nag tur wi yow laa ciy xaar ba tax na cheikh mamadul faadal Taïf Mbàkke fop nag ak xasida jagleel ko dëkk boobu di Taïf Mbàkke way yooyu mu jagleeloon Taïf ak kii di Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ginnaaw bu mu tuddee dëkk boobu di Taïf Taïf ma ngay wax ca biir waye moom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke yow mi am ay jafe-jafe damal seeti nag xalifab di Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ci dëkkam bu sell boobu di Taïf mu ne nag Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke mi nga xam ni moom mooy wéeruwaayu jirim yi ñi am nag ay jafe-jafe moo xam ñi seen boroom kër faatu wala daal képp ko am jafe-jafe damal seeti daal Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ci dëkkam boobu di taayifa lu waaye di ragal itam soo demee mu fegal la ko ñu teewlu way yi cheikh mamadul faadal mbàkke defoon ci dëkkub cheikh mamadou moustapha boobu di taayif ginnaaw bu ko cheikh mamadou moustapha waxee ne sama dëkk bii ma sanc kat yow laay xaar ci tur wi te cheikh mamadul faadal mbàkke tudd ko taayif wayoon ay way jagleel ko taayif ak cheikh mamadou moustapha mbàkke ñu teewlu way ya taifan yaxsha nawaibu dëhrihi luz bil xalifati mustafa bi taifi mahwa al aramili wal ufaati jamiahum ma bayna rajin minhu minhum aw qaa'ifun mu wéy nag topp ci magam ji cheikh mamadul moustapha mbàkke ba nim génnee àdduna ci le 14 juillet 1945 cheikh mamadul faadal mbàkke nag toog xalifa général des mourides ci bëccëgug le 14 juillet 1945 wuutu nag magam ja cheikh mamadul moustapha mbàkke murit yépp nag di ko xoolee xaadim rasuul mu yor nag toogaayu xaadim rasuul ba tax na cheikh mamadul faadal mbàkke liggéey na lu baree baree bare ci xilaafaam ndax magam cheikh mamadul moustapha mbàkke ci bëccëgu juróom-ñeenti mois de juin ci atum 1940 la bàyyi liggéeyub jumaa ji booba nag cheikh mamadou moustapha mbàkke mi ngi ko bàyyi ci taxawaayu ñeenti sooroor ak liggéey boo xam ne ni toll na ci fenêtre sooroor yi itam tàmbali naa jóg ba ñépp xam ne lii ay soroor la foofu la cheikh mamadou moustapha mbàkke magam ba liggéey bi guerre mondiale bi tàmbali ci mois de septembre ci atum 1939 cheikh mamadou moustapha mbàkke yóbbu na liggéey bi ba ci juróom-ñeenti fan ci mois de juin ci atum 1940 dara mënatut a dem ndax guerre mondiale bi moo ëpp doole lépp ñu taxawal liggéeyub jumaa ji cheikh mamadul faadal mbàkke moo tàmbaliwaat liggéeyub jumaa ji ci bëccëgub fukki fan ak juróom benn ci mois de mai ci atum 1949 continué nag société yi fi cheikh mamadul moustapha mbàkke bàyyi woon ñu koy wax société italienne bu tudd dara Daragas mu mamadul faadal mbàkke signé woon naa ak yeneen contrat ak yeneeni société yu nekkoon itam ci réew moom di Italie liggéeyub jumaa ji nag di wii mu mamadul faadal mbàkke nag moo ci yokk soroor bu mag bi mooy bi mu tuddee maam ibrahima fall lamp baabul muridiina soroor bu Mbàkke mi ngi ko bàyyi woon ci taxawaayu 86 mètres virgule 82 centimètres ginnaaw bi nag Sëriñ Tuubaa Cheikh Saliou Mbàkke yokkaat na ko murid yi nag wéy nag nekk ci jumaa ji di liggéey ci ndigalul Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke ba ni jumaa ji eggee ci atum 1962 waaye julli wuñ ci ba ci atum 1963 le 7 juin 1963 nag lañu inauguré jumaay Tuubaa ji Cheikh dul Fadal Mbàkke moo nekkoon imaam ba nekk itam lii di xalifa général de mourides ci teewaayu nag kilifa yu takkoo takku ci biir réew mi ba ci sax bitim réew cheikh mamadul faadal mbàkke moom itam moo wéy nag di nekk imaamu jumaay tuuba ba ni mu génnee àdduna ci atum 1968 li ko dale ci le 7 juin 1963 ba le 6 août 1968 cheikh dul faadal mbàkke moo nekk imaam bi cheikh mamadul faadal mbàkke nag jiite na nag lii di ajjuma ci jumaay tuuba ji lu tolloog ñaar téeméeri ajjuma ak juróom benn fukk ak benn diirum nag li jumaa ji pare mu nekk imaam bi ñaar téeméeri ajjuma ak juróom-ñaar fukk moo ko fi fekk juróom juróom-ñeenti ajjuma ya la wuutee juróom-ñeenti ajjuma yi itam li tax Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke wuute ko dafa tëddoon feebar bi ko génne àdduna kuñ doon wax sëriñ Bousso Ilimaan moo ko wuutu ci juróom-ñeenti ajjuma yooyu mu wuute lii di màggalug Tuubaa itam Cheikh dul Fadal Mbàkke moo ko dajalee woote ko ci dëkk bu sell bii di Tuubaa ci atum 1950 muy màggalug fukki fan ak juróom ci weeru safar gu njëkk a màggal ci dëkk bu seel bii di Touba màggal googu itam ci atum 1952 di ñaareelu màggal gu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke màggal ci dëkk bu seel bii di Touba màggal googu itam lii di autorité coloniale yi fi newoon itam teew nañ fi ñu man cee ràññee général bi fi newoon ñu koy wooyee général Cornichati ak délégation bu takkoo takku ca biir délégation boobu itam ba tey manoon nañ caa ràññee général bu ñuy wax Déchar ñi itam teewoon nañ ci màggalug 1952 ci cérémonie officielle bi amoon ci boobu sax Cheikh Mamadou Fadal Mbacke yëkkati woon na kàddu di wax nag lan moo tax mu woote nag lii di màgg lu tuubaa gi mi ngi wax bisub keroog murid yi di leen xamal ne woote gi mu leen woo wooyewu leen dara ngir dara ndax bu leen doon wooyee dara ngir dara dana ko sàkkal waxtu te kon bu boobaa itam du bàyyi ba waxtu nawet jot mu leen di woo mu ne nag da leen di woo rek ngir topp nag ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadiim mu dul faadal mbàkke nag mi ngi wax murid yi bisub keroog ni ñu ñëwee nag wuy si ko neex na ko lool nee na nag mi ngi leen di gërëmal sëriñ bi bu baax a a baax ndax murid yi kat keroog noonu ñu def nag noonu seexul xaddim bëgge mu wax ne nag seexul xaddim moo ko santaane woon waaye nag seexul xaddim doxal na ko diir bu tuuti bàyyi koo fi cheikh mamadul moustapha mbàkke itim nag wéyal na ko nag moom itim waaye yëggul mu bàyyi koo fi moom nag jamono ji nag moom moo fi nekk moom moo tax nag mu koy wéyal mu ne nag bëgg na nag lii di màggalu Tuubaa gi yaatu yaatu goo xam ne nii nag la ca seexul xaddim bëggoon dana ko ci am ñun murid yi liñ bëgg nag ñi itam ñu am ko ci mu nag bu sañoon moom lu baax lay am te lu baax loolu mu am itam bu sañoon képp kum séqal xaadim rasul itam lu baax rek ngay am mu ne bis mi fonku mu ne nag ñu baree baree bari ñi ngi dem ci penku bi muy màkkatal mukarrama dafa aji la tax nag ñu dafa aji mooy kiiraay la fa nekk di ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam mu ne bu sañoon itam soow biitim am kiiraay bu mel noonu ndax moom mooy tuubaa kan moo fi nekk xaadim rasuul ñu teew lu kàddu yi cheikh mamadul faadal mbàkke yëkkati woon ci màggalug 1952 ci cérémonie officielle bi amoon ci lan moo tax nag mu woote bésu fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar ne bu fekkoon te ni da leen di woy di wut dara ci dara kon dina sàkkal wax barab bii ne kon dina gën a mu def ko leen di woo ngir topp digal lu sëñ Tuubaa ak di leen woon na mu toll na ndigal di toll woon ci moom ñi ngeen dikkee nag neex na ko lool moom sëriñ bi dégg na ci mi ngi leen di gërëmal sëñ bi bu baax a baax waxoon mooy ni ngeen def ndax la ko sëñ Tuubaa santoon mooy li ngeen def ko santaane woon nag da ko santaane woon nag mi ngi fi di ko doxal booba mi ngi fi di ko doxal doxal na ko diir bu gàtt yàlla te mu dikk ci barab bu tedd bii sëñ Mor Moussa mi nga xam ne ginnaaw moo fi nekk notam doon na ko doxal moom itam yàggul man mii nga xam ne maa fi nekk léegi nag damaa def koo xam ne kii ngottuma bëgg naa rek bëgg naa rek ñu yaateetu boo xam ne mooy yaatu yaatu boo xam ne la mu ci la mu ci bëggoon la ci sëñ lépp mu am ko ci ah mu am ko ci la mu ci doole itam la mu ci doole itam ñëpp am ko ñëpp am ko ndax bu ma sañoon lu baax laay am lu baax laay am ndax ñëpp si bokk ko te bokk ko ñëpp moo tax bis xam ne sëñ da ko santaane sëñ bis ñëpp di ko fekk si daa bëgg ñëpp di ko fekke si bu defee bu ko defee lanu si yaakaar ci ñun lanu si yaakaar ci moom te mu bëggal nu ko moom itam mu bëggal nu ko daana ko am na mu ko bëggee si noonu dinanu ko am na mu ko bëggee si noonu dama bëgg daal damaa bëgg daal bi nga xamee ne waa penku gëlee dañu fay daje ji te lu tax ñu mën faa daje moom jàmm ci kaw jàmm dañu am kiiraay dañu am kiiraay bëgg soow bi itam ma bëgg soow bi itam neel ci kaw kiraay Fadal Mbacke yëkkati woon ci màggaluk Touba ci lan moo tax mu woote ko lii di téléphone itam Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo ko fi indi ci ak xilaafaam lii di courant itam Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo ko fi indi ci ak xilaafaam ndox itam muy forage bi njëkk am Touba itam Cheikh dul Fadal mbakke moo ko fi indi muy forage bi nekk ci Touba Daaru Marnaan ci atum 1948 jàpp 1949 lii di armée itam Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo ko yokk moo ko miire Touba itam Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke moo ko jële ci kër yóbbu ko itam ci dëkk ndax kadu fi Seexul Xaddim di nekk benn kër dong moo fi nekkoon muy kër Seexul Xaddim gi ginnaaw bu Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke toogee xalifa général des Mourides nag Touba nag bari woon na ay kër këraan waaye kenn lotise wu ko woon bi Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke toogee xalifa nag ci atum 1960 ca ñeenti fan ya ci mois de avril nag lañ ko lotise mu fob doomam ja Sëriñ Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma jox ko ndigal ngir mu natt dëkk bi 20 000 parcelles lañ jamono jooja ñaar fukki junniy kër marché bu mag bi nekk Touba itam ñu tudde ko marché Ocass Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo ko tudde tur wi moo fa def itam lii di ñaan marché bu Mbacke Bawal itam Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo teg xeer wi moo ko inauguré ci bëccëgug le 24 mai ci atum 1965 ci teewaayu Léopold Sédar Senghor ak Doudou Thiam mi nekkoon maire bu Mbacke Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Cheikh Mamadou Bachir ak ñeneen ak ñeneen ñu àndoon ak Cheikh Mamadou Fadal Mbacke lii di gaar bu ndaw itam ci Touba Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo ko fa def ndax Cheikh Mamadou Moustapha Moustapha Mbacke gaar bu mag bi la fi bàyyi woon waaye Touba amoon na ñaareelu gaar ñaareelu gaar boobu nag moom lañ tudde woon gaar bu ndaw kii di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo ko fi defoon jàkka ji nekkoon ci péncum Mbacke xewar mi laata sëñ Abdoulahi Mbacke yàllay buur itam di fi def lii di jumaa ji jàkka jooju fi nekkoon Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo ko fi def moo ko inauguré itam ci atum 1964 wax njabootu Mame Mor Diarra di leen wax ne seen waajur wa Mame Mor Diarra moo ma jàngal te donga bu ne nag warlonte naa ko sëriñam àllarba samay àllarba nag bi ma ko dajalee moo nekk nii lii di goudron itam cheikh mamadul faadal mbàkke moo ko indi Touba muy route nationale numéro 3 muy Thiès Touba 117 kilomètres la ci atu 1953 ba atu 1957 lañ defar yoon wi ñaareelu yoon bu fi cheikh mamadul faadal mbàkke indi mooy route bii ñu tudde route daara Touba ci atu 1962 ba atu 1963 lañ ko defar 68 kilomètres la société bu ñuy wax SFEDP moo ko tabax 625 millions lañ ca defoon jamono jooju ñetteelu yoon bu fi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke indi mooy Kébémer Touba 92 kilomètres la société bu ñuy wax Champs Lefèvre Sénégal mooy ki ko liggéey ak beneen société bu ñu doon wax Air Sante ak beneen société bu ñu doon wax Hortal 684 millions lañ ca defoon jamono jooju yoon woowu nag ñi ngi ko defar ci atum 1963 ba atum 1964 lii di poste de santé itam mu Mamadou Fadal Mbacke moo ko fi indi muy post de santé bi nekkoon ci Touba 28 poste de santé boobu itam mooy kërug docteur bu njëkk ci dëkk sell bii di Touba Cheikh Mamadou Fadal la yoon yooyu fi Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke defar ci ndimbalul nag président de la république bi fi nekkoon la li Léopold Sédar Senghor loola itam taxoon na kii di Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke toogoon na ci ab jataay sant bu baax a baax Léopold Sédar Senghor keroog ma ngay wax nag ca jataay ba di xamal nag mbooleem murid yi li ko booleeg nag kii di président de la république Léopold Sédar Senghor Sëriñ mi ngi doon wax ne ci Mbàkke di jàppale nag bu fekkee ne daal moom bu faloo maanaam du defal dara sëriñ Tuuba yàlla bu mu falu sëñ Fàllu ne Léopold Sédar Senghor da koo waatoon nam ko waatee nag defee ne ko ni kon nag murid yi nañ jàppale kii di Léopold Sédar nee na keroog bi Léopold Sédar Senghor faloo dafa ñëw ci moom ne ko la ma la waxoon kan moom laa lay wax si loo bëgg Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke ne ko bokk na ci la ma bëgg mooy bépp yoon bu jëm si Tuuba nga defar ko te noonee mu ko waxee woon Senghor Senghor defe ne ko ni mu ko courant baa ngi nii egsi na noonee ko Senghor diggee woon defe na ko ni murit yépp itam nañ teg loxo lii di Senghor nañ na ko jàkk buñ ko xool di raf buñ ko xool di xapp-xappal bu ñu piis ndax kat la Senghor waxoon def na ko moom nag jàpp na Senghor ndax Senghor da koo jàpp na ko murit yépp nag jàppale Senghor lépp lu Senghor soxla itam nag na ko murit yépp def kon nag comme Senghor lam waxoon def na ko moom itam def na ko nee na lii rekk la ñu teewlu kàddu yi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke yëkkati woon ci lan moo tax mu jàppale Senghor dafa wax ne bu ma bu ma ko amee. dafa wax ne bu fekkee boo ko amee. na leen jàppale seen seen tubaab yi. dina leen jàppale seen tubaab yi. naa ko am. nee na ko am. su fekkee bu ma ko amee du ma ko def. mais su fekkee bu ma ko amee du ma ko def. bu ma am dara. mais bu ma am dara. da koo waat da koo waat. te boobee. te boobee. dañ ko amee nag. ba mu ko amee nag def na ko ni mu ko waxee woon. def na ko ni mu ko waxee woon. kon nag. mais kon nag. moom moom itam. moom moom itam. na ngeen ko jàppale jàppale. nee nañ koo jàppale. ndax dafa dafa dafa leen jàppale. ndax daf noo jàppale. moom dinañ ko jàppale bu baax. moom it nañ ko jàppale bu baax. yow xool kenn. bu ñu xool kenn kenn duñu seet kenn duñu seet kenn duñu xool kenn duñu xool kenn nañu ko xool nañu ko jàpp suñu gët nañu koy jàpp suñu gët kon jàppale ko moom itam jàppale ko moom itam ñu ñu jàppale lii mu jàppale ñu waatoon da ko waatoon lii mu waatoon def na ko mais def na ko nag seere yaa ngi fi mais seere yaa ngi fi ñu wax na wax na ne ñu loo bëgg def ko ni loo bëgg bokk na ci ñu bëgg mais bokk na ci ñu bëgg yoonu jëm si Tuubaa yëpp yoonu jëm si Tuubaa yëpp na baax na mu war a mel na baax man na mu war a mel mais def na ko mais def na ko nag ñu ñu am ñu am ñu fii ñu indi lamp yi ba fii. àll bi nga xam ne liggéey ci Sëñ Tuubaa santaane. mais àll bi nga xam ne liggéey képp la Sëñ Tuubaa santaane. def nañu ko def nañu ko lan ko ñu ko bëggee ñu ko bëggee kon ñu jàppale ñu mais kon nag ñu ko jàppale ñu ñu ko jàppale ñu ñu ko jàppale ñu tam moom jàpp naa ko muy mais moom jàpp na ko ñu ñu ñu ñu waxoon ñu ñu leen waxoon ak jàppale ba mu waxoon ngir jàppale ba mu waxoon rek def na ko ñu def na ko mais moom def na ko moom def na ko ñu ko xoolal ñu ko xoolal ak jàpp ay ay bët ak i bët di ko xool di ko xool xolle ma ko xolle ko ko hmm, fekk nañ ko piis nag nañ ko nañ ko jàpp ñaar ñu ko piis nag nañ koy jàpp lépp lu ñu soxla mais lépp lu mu soxla nañ ci taxaw mais nañ ci taxaw ñi nga xam ne lépp lu mu soxla mu taxaw ca mais ñi nga xam ne lépp lu mu soxla mu taxaw ca ñu jàppale moo ne nañ ko jàppale kon ci moom mu ne ci yow nag koo ne ci moom mu ne ci yow rek ci xilaaf ak Cheikh Mamadou Fadal Mbacke tim kilifa yu takkoo takku teew nañ ci dëkk bu sell bii di Touba ngir seet ci Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ci le 18 septembre 1960 1963 Cheikh Ibrahima Niass ñëw na ci dëkk bi ci le 19 septembre 1963 les pionniers du Sénégal itam ñëwoon nañ seet si xalifa général des Mourides di Cheikh Mamadou Fadal Mbacké ci le 8 novembre premier ministre bu Nigéria itam ñëwoon na seet si Cheikh Mamadou Fadal Mbacké premier ministre bu Nigéria boobu mi ngi tuddoon Siri Ahmadou Bello ci 1er septembre 1961 lañ amoon journée de l'arbre de Touba de bis buñ jagleeloon wàllu njëmbatum garab ci dëkk bu sell bi di woon bis booba ci atum 1968 itam grève bu méttee métti amoon na ci réew mi di réewum Sénégal grève boobu itam ca mois de mai ba Cheikh Mamadou Fadal Mbacke yëkkati woon na ci ay kaddu ngir di wax waaye ñaxtukat yi ñu delluwaat ci seen place te wéy nag ci njàng njàngalem Xaadim Rasuul grève boobu amoon itam bokk na ci discours bu mu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke mujjee def wala bokk na itam ci yim mujjee def Cheikh Mamadou Fadal Mbacke itam daana def saa bu séentu weer wi mu ñëw ci dëkk bi di Mbacke Bawol koy wéyal ak yeneen ak yeneen yu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke def ci xilaafaam xam naa ku bëgg lim lu cheikh mamadul faadal mbàkke def ci xilaafaam daa juum ndax cofeel gum amoon ci murid yi ak bëgg gum bëgg waajuram xaadim rasul cheikh mahamadul faadal mbàkke dem na màkkatal mukarrama ci atum 1928 ñi ngi fi déparé ci bëccëgug le 7 mars 1928 ñi ngi ñibbisi le 28 juin 1928 ci aj googu kii di maam cheikh anta mbàkke borom dërëm ak ngërëm di waajuram la àndaloon ak nijaayam sëriñ mbàkke buso ak ñu takkoo takku nag ci yoonu murid ci ajug màkka googu itim bi ñuy jóge ci réew mi di Sénégal ab bato lañ ba nag ma nga tuddoon Amar mu wa sallam ma ngay wax ne nag ñun ñi ngi bàyyi koo ci dëkk bu sell bii di Touba ñëw itam ci dëkk bu ñuy wax Tayba ziyaare si nag ki nga xam ne ni moom mooy sangu mbindéef yi di kilifa itim dëgg-dëgg nee na na képp koo xam ne ni ziyaare nga soppeb yàlla bi ak ñaari sahabaam ya di Omar ak Babacar jëratul na ngay ragal dara nag ci àdduna ñu teewlu way yi Cheikh Mamadul Abdul Faadal Mbàkke defoon ci màkkatal mukarama ginnaaw bu mu jàkkaarloog barabum ngën gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam fa min tuuba li taybati xad nazalna nazuuru sayida shahmil humama fa man zaara alxabiba wa saaxibayhi fala baxsan yaqaafu wala malaama gaa yiy dëkke jàmbat itam ci mu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke waxoon naag ñoom ba taxoon itam mu bindoon ay way jagleel leen ko nee doomu aadama bi nag na xam ne saa bu xëyee daal dana gis loo xam ne nii dana ci mën a suturowu dana ci mën a dund loola rek doy na ak cant ñu teewlu way yi ci cheikh mamadul faadal mbàkke defoon faltaxmadillaha rabbal arshi mawlaaka li annahu xayray daarayni awlaaka id kullu yawmin tara ma tastaciinu bihi min amri dunyaaka aw li amri uxraaka way yiitam cheikh mamadul faadal mbàkke mi ngi ko jagleel waajuram xaadim rasul ginnaaw bu mu ko ziyaare jee ca barabam ba mi ngi wax na ci biir way yi bëgg gim bëgg sëriñ tuubaa bay tuur ay rongoñam farata la ko def yi cheikh mamadul faadal mbàkke def ci xaadim rasul ngir bëgg gum ko bëgg hubbi lahoo dëhra yugnini an hubbi siwaahu yazdaadu fi kulli hiinin fi lxalbi minni hawaau safku dumuuci li hubbil xadiimi fardan araahu cheikh dul faadal mbàkke nag waxoon na ci diggante ngénte yi ak sëy yi ma ngay wax na nag am na ndigal lum fi joxe woon ndigal loola nag ba nëga ni mi ngi koy fedd li tey jii mooy solo sëy yi képp koo xam ni am nga xaalis muy kàttan nee na bëggee jigéen bu ca paase ñetti junni ne junni yi bu ko paase ca jigéen ja bu fekkee ne nag bala ngaa takk jabar ñépp yëg ne nag da ngay takk jabar ci wàllu ndimbal ab junni bu ko paase ca ka ngay bëgg ñett yii rek moom mooy yëf yi nañ bàyyi puukar réew bi lii di ngénte yu rëy yi itam nañ ko bàyyi ndax ngénte du dara wutal doomu aadama bi aw tur nag jëru rayu nag ak yenn yi sunna ji rek ak farata ji rek moo ci am solo lii bu buñ ko defee sëy yi dana am sutura dana am barke mun a jaaytaar bi nag bis bu buñ ko defee du faj dara te balaa ëllëg itam ñuy fayante ay alal boole koog nag di ñaawoo te loolu dara jëru Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke yëkkati woon jëmale ko ci sëy yi ak lii di ngénte yi am na fi lu mu digle woon daaw jéeg am na fi lu mu digle woon daaw jéeg maa ngi koy fedd nii mi ngi koy fedd nii di koy waxaat tey jii di ko waxaat tey jii loola moo di loola moo di solo sëy yii solo sëy yii képp koo ci xam ne képp koo ci xam ne am nga kattan am nga kattan ñu weesu ñetti junni ci ci ka ngay bëgg bul weesu ñetti junni ca ka ngay bëgg boo amee kattan boo amee kattan boo yësee la boo yësee sa nag ci kattan ci kattan ñaar ñaar ñaari junni ñaari junni laaj nga jub mooy boo xawee dañ lay dimbale benn junni rek benn junni rek ñett yi daal mooy lépp ñett yi daal mooy lépp dañu bàyyi puukare bi nañu bàyyi puukare bi ak ñeent yi ak ñeent yu rëy yi nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi ñeent yi dara ñeenteetu dara aw tur rek la aw tur rek la aw tur jër nag ak ne aw tur jër nag ak def lu ne sunna ji rek ak farata ji kat ak farata ji kat rek nii su ngeen ko defee nii su ngeen ko defee dana yomb sëy yi dana yomb dana am barke itam te dana am barke bu ngeen ci defee ay puukare bu ngeen ci defee ay puukare dara. du fa dara balaa nga kàddu yooyu nag képp kuy borom kër war nga koo dégg bu baax a baax te jëfe ko. ci xilaaf ak Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke am na feebar bu metti bu fi amoon ñu jàppe ko feebaru pes ca feebar booba nag kii Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke bindoon na ci ay way Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ibnu Serigne Touba Cheikhul Khadim tim bindoon na ci ay way Cheikh Mamadou Fadal Mbacke tim bindoon na ci ay way wayi Cheikh Mamadou Fadal Mbacke bindoon ca feer boobu amoon di feebaru pes ci tàmbali xasida gi kii di mu dul faadal mbàkke ma ngay wax buur bi tabaaraka wa taala suñu boroom suñuy mbir amuñu kenn ku ñu koy jàmbat kudul yow te amuñu kenn itam ku ñuy wéeru kudul yow lor yu jógee faneen kudul yow itam duñu ko ragal ñu itam kenn jàppale ñu kudul yow jamono jii ñu weesu itam àdduna metti woon na lool ci ñun jamono jii ñu toll itam àdduna metti na lool ci ñun lii ñu dëgmal nag ci seen kanam maa ngi lay ñaan nga nekk ku leen di aar te sàmm leen ba àdduna nag woyof lool ci seen kaw ay ñaan yu bare bare bare bare la cheikh mamadul faadal mbàkke defoon nekkoon ci xasida googu ci feebar boobu amoon ñu teewlu ko li gayrika la nasku ilaha alwara amra wama illana illa ilayka iltija dëhra walasna naxaafu durra mimman siwaaka la kazalika la narju siwa yusrikum yusra wa ahlu dunna axnat alayhim surufuha wama minhumu illa aquu kabidin xarra wa fi ma mada daaxa alzamaanu alayhim wa fi ma sayaati falya yakun zawara zifra wa min mustakin faqran wa min mustakin ballan wa min mustakin daynan wa za minhumu axra fa kun daafiat sakwa aljamica wa ummahum bilutfin wa kun rabban ra'ufan bina barra wa yaa caaliman minna asaraa'ira fasturan macaa'ibana wanshur lana rabbana zikra wa xuufa zalilin qad waxafna bi baabikum wa inna la narju minkum alfatxa والنصرا لقد ضاق حال الوقت واشتد أمره ففرج إلهي كربنا وادفع الضرا وبارك لأهل الشيخ في الدين والدنا وأول انكسارا منهم سرمدا جبرا عليه رضا الرحمن في كل ساعة بمخدومه السامي أجل الورى خدرا عليه صلاة الله ثم سلامه بآل وأصحاب له أكمل الأمرا ginnaaw ñaan yooyu Cheikh Mamadou Mamadul Faadal Mbàkke defoon ci feebar boobu amoon Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam bindaat na lu baree baree baree baree bare ci wàllu tasawuf ci wàllu ay ziyaar yum defoon ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadim ay way yum séqoon ak Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ak kii di sëriñ Mor Roqaya Buso ay way yum way ay naar tolluwaayu jamono ak yeneen ak yeneen ak yeneen xam naa daal ku bëgg lim lu mu dul Faadal Mbàkke bind daa juum ci gàttal daal Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke lépp lu ko waroon def na ko xam naa itam ci kàgguy Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ba gis faadal mbàkke bind daa yëg na doomu seexul xaddim bi ku miinoon xalima la cheikh mohamadul faadal mbàkke itam bindkat yu mag itam bind nañ ci moom ngir di ko way ak di ko tagg moo xam cheikh Moussa Ka Baye Omar Kane Balla Aïssa ak mbooloo mu takkoo takku ci gàttal daal képp kuy bind sa xalima jëmale nga ko ci mu mohamadul faadal mbàkke ku fonkoon waajuram la Mamor Jaara moom mu mohamadul faadal mbàkke ba tax na bi Mamor Jaara génnee àdduna ci atum 1921 cheikh mohamadul faadal mbàkke defoon na am marché jagleel ko waajuram woow di Mamor Jaara wax ne ci biir marché ba àdduna moo tëdde noonu wala àddunaa ngoogu heure bu la bégalee jooy loola ndax nim lay bégalee ni la lay jooyloo mu dul faadal mbàkke ba nag ni mu ngi ñu xamal ne génnuk àdduna ak màmmoor jaara bokk na ci mettit yi nga xam ni àdduna teg na ko mbindeef yi mu ne màmmoor jaara nag nekkoon na koo xam ne nii njariñ la woon ci askan wi nekkoon na xéewal ci kaw suuf xéewal googu mu nekkoon ci kaw suuf itam bokk na itam ci ngëneel yi suñ boroom wàcce woon ci kaw jaam jaara hiya dunya fa in sarratka yawman fa inna alxusna aaqibatu sururi wafaatu cheikhi ahmada jaara amrun cazimun min mulimmaati duhuri alaa xad kaana fi l awaa'i ruknan mashiidan bi lataafati walxubuuri wa xad kaana almacdu likulli xatbin jaliilin fi qafaa'i aw zuhuuri saqaa musnu rida suqyaa dariixan yuwaariihi calaa marri duhuuri الدهر ودامت رحمة المولى عليه تقف بها ألا أو في السرور بخاتم رسله صلى عليه إلى العرس بالآل البدور ba tey maam Mor Jaara moomu ku Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke fonkoon la ba tax na tudde na ko doom dëkk bii di Mbàkke Bawol tim Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke fonkoon na ko ndax maam Mor Jaara waajuram maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ku Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke fonkoon la ba tax na daana dem ci dëkk boobu di daaru muxtiitim di ziyaara ji waajuram maam Cerno Ceerno Ibrahima Faati ndax kat Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke daana wax ne suñu baay Ceerno moo ñu jàngal bañ na ar mu yeeñu bañ na jër loolee itam taxoon na kii di Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke defoon na ay way ginnaaw ba mu ziyaare jee waajuram woow di maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru ci dëkk boobu di daaru muxti te waye Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke way waajuram maam Ceerno Ibrahima Faati ma ngay wax ne ñëw naa nag ci dëkk bi di daaru muxti seet si nag ki nga xam ne ni moom mooy joxe waa kon bi ci bi nga xam ne ni moom mooy dëkkub joxe waa kon bi ngir mu jox ma nag ma seet si nag jikkoom jikkoom nag jikko la ju sax nag ci moom jëmm ji nag ak tabam bu ameeg bu ñàkkee ci jamonoy ñàkk ak jamonoy am itam ñoo yem heure boo ko seetsee mu jox la ci tabam ñu teewlu way yi Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke defoon ci maam Ceerno a Faati Mbàkke ndaamal daaru ginnaaw bu mu ko seetee ci dëkk boobu di daarul muxti ataytu ila a mi'ta'i fi daaril mu'ti li yushki shakwa al xabd minni bil basti xamidul xisaali thaabitul jahsi ummatun Fatick way yooyu la defoon ci waajuram maam no maam Thierno moom itam Cheikh Mamadou Fadal Mbacke tudde na ko doom bis bii ñu koy fàttaliku di fukki fan ak juróom ci weeru Chaxbaan kii di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo jox ndigal njaboot gi ngir ñu ko koy màggal waajuram Cheikh Massamba Mbacke wólla réew Cheikh Mamadou Fadal Mbacke la woon ndax ñoom ñaar ñoo nekk ndawoon gànnaar te ñoom itam la Seexul Xaddiim boole woon ngir yebal leen ci dëkk bu sell bii di Touba ginnaaw bu mu génnee àdduna ci atum 1943 kii di mu dul faadal Mbacke nag defal na ko am marsiya ca biir marsiya tarxiya ba cheikh mamadul faadal mbàkke ma ngay wax ne kii di sëriñ ma sàmba mbàkke nekkoon na ku tabe nekkoon na ku yiw nekkoon na ku doon xettali doomu aadama yi mi wax ne kii di cheikh ma sàmba mbàkke li mu amoon di wërsëgam ku ko daa séddale doomu aadama yi la ba tax na doomu aadama yi daanañ def ay délégation ñëw nag di ko seetsi ci kenn ku ne jafe-jafe ba nga amoon mu ne nag ci biir délégation yooyu musu cee ràññee na kii mbokkam la wala ko ko sori fu waay masaa jóge daal soo ñëwee la nga soxla mu fajal la ko lu yaatoo yaatu daal la wax ci ginnaaw wàllu marché bi cheikh mamadul faadal mbàkke defoon ci waajuram cheikh masamba mbàkke masamba kaana mufiidul mustafiidu wa munji mustaxiisu ida mannaasu xat qaxatu talfa alcufaatu wa fuudan cinda maxdarihi laa farqa bayna zawi alqurba wa man shaxatu taraahum caakifiina xawlahu wa hum lima sayarmi lahum kaannahum rubitu laa yabraxuuna ladayhi xawman abada multaxitiina cataaya minhu tasaqatu yucta aljazila bila mannin wala sa'amin laa huwa munqabidun bal huwa mun منبسط رحب الفناء جميع الناس يألفهم إنهم فرادى ومثنى أو هم اختلط حامي الزمار وفالعهد حافظه كأن هذا الورى في كفه انضبط من الأحاديث هذا الشيخ يجمعها في جنة الخلد مغبوطا ويغتبط ثم صلاة بتسليم يقارنها على النبي ومن في سلكه inqaratu yeneen mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moo xam rakki ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moo xam taalibe yu mag yi ñu ci bare bari cheikh mamadul faadal mbàkke tudde na leen doom kii di waajuram maam cheikh anta mbàkke ci atum 1928 ñoom ñaar ñoo ànd ci dëkk bu sell bële di màkkatal mukarrama ba tax na itam tudde na doom kii di maam cheikh anta mbàkke mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim te ñu tudde leen ay cheikh ñu ci bare bare itam kii di cheikh mamadul faadal mbàkke tudde na leen doom ñu mën cee ràññee kii di sëriñ moodu masamba jóob saam cheikh mamadul faadal mbàkke Mbàkke tudde na ko doom kii di sëriñ Afee Ñang magam cheikh Mamadul Faadal Mbàkke tudde na ko doom sëriñ Moodu Maamun Mbàkke di doomu maam cheikh Anta Mbàkke cheikh Mamadul Faadal Mbàkke tudde na ko doom sëriñ Moodu Xabbaan Mbàkke di doomu cheikh Mandumbe Mbàkke cheikh Mamadul Faadal Mbàkke tudde na ko doom sëriñ cheikh Awa Balla Mbàkke di doomu maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru itam mu Mamadul Faadal Mbàkke tudde na ko doom maam cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina kii di mu dul Faadal Mbàkke tudde na ko doom sëriñ Mbàkke Buso di nijaayam cheikh mamadul faadal mbàkke tudde na ko doom ndax ñetteelu xalifaam bii sax sëriñ mbàkke buso la ko tuddee ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu mu tudde ay doom ci mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ndax mu dul faadal mbàkke kat xaadim rasuul dong nag la doon xool ci ñooñu ay rakki boppam di ñi mu bokkal xaadim rasuul amul kenn na kum ci tuddewul doom moo xam cheikh mamadou moustapha cheikh mamadou lamin baara mbàkke ba ci cheikh murtada mbàkke caatma bari na itam ci doomu seexul xaddiim ñoo xam ne cheikh mamadul faadal mbàkke tudde na leen ñetti yoon doom wala ñeenti yoon doom njaboot ñu nekk jigéen itam kasaalika li ko dale ci soxna Fatja Mbàkke ba ci soxna Maymunatu Mbàkke borom laylatul xadar kenn ku ne kii di Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke tudde na la doom am na itam ci ñu jigéen ñi ñu tudde sax lu ëpp ñetti yoon doom wala ñeenti yoon doom kon ku bëggoon ay magam lañ ak ay rakkam ndax xaadim rasuul noonu mu fonke woon rakki boppam ak njabootu xaadim rasuul gi ni la fonke woon itam mag ñi wëlërante wër na xaadim rasuul maam Cheikh Mbay bu lugaloo mu Mamadul Faadal Mbàkke bindante woon naa moom ay way sëñ mat saxir mbay ma ngay wax ci biir way ya di wax ne de suñ suñ borom bind na doomu aadama yoo xam ne buñ wàccee fenn ci jamono ak tab lañ fay wàccaale ak ay leer yoo xam ne nii nag day jolli saa su ne jëm nag ci kaw asamaan si mu ne doomu aadama yooyu buñ wàccee ci kaw suuf su si itam day bég ndax day mel nem nawet wa yooyu la sëriñ Moodu Saxiir Mbay bindoon jëmale ko ci mu cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ñu teew lu ko lillahi xawmun ida xallu bi manzilatin xallan nada wa allat fil jawwi anwaaru tastaaquhum kulla ardin yanziluuna biha ka annahum hum bi buqaa'il ardi am taaru loolu la ko sëñ Modou Saxiir Mbay bind Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke na keroog mi ngi tontu sëriñ Modou Saxiir Mbay di ko wax ne gaa yu baax yooyu ngay junj ci way yooyu nga way képp ku jóg nag dem ziyaare ji leen wala nga taqoog ñoom suñ boroom nag dana la faral mboolee bàkkaar bu la dal ziyaar googu nga jóg nag di leen ziyaare ji ci ngay taseeg nag lépp loo xam ni nii aw yiw la ci la lay fegale itim lépp loo xam ni nii ak lor la ñu teewlu way yi ko Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke woon moom sëriñ Modou Saxiir Mbay moom aw kunta zaa'irahum bi yumnihim faaraxatka dëhra aw zaaru is bi ziyaarati talqaa kulla makrumatan wa yantafi bi liqaa'i alfaqri wal aaru cheikh Moussa Ka itam bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim wala réew cheikh mamadul faadal mbàkke la woon ba tax na cheikh mamadul faadal mbàkke moo ko dël ci dëkk bu sell bii di tuubaa këram gi mu génne àdduna ci tuubaa 28 itam cheikh mamadul faadal mbàkke moo ko jox ba tey itam nekkoon na ku sës ci cheikh mamadul faadal mbàkke ba bi Mouhamadul Fadal Mbàkke demee màkkatal mukarama ci atum 1928 newoon na Cheikh Moussa Ka bim ñibbisee bokk nga ci ñi ma ajaaleel yeneen mag ñi nekkoon ay waajuram itam wala ñu toppoon xaadim rasul itam ku ne Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke amoon naag yow kóllëre ba tax na mag mu ne itam daana la seeti daana la nemmeeku mag ñi itam amoon nañ ci moom cofeel ba tax na ñu ci baree bari tudde nañ ko doom moom Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke nag am na ay turandoo ci atub ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim magam Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbàkke tudde woon baara mbàkke tudde woon na ko doom rakkam cheikh mamadul bachir mbàkke tudde na ko doom ndax sëriñ elaaji yu mbàkke bu cheikh mamadul bachir mi ngi fi rakkam cheikh ibrahima mbàkke ibnu sëriñ tuba seexul xaddiim tudde ko doom cheikh abdul ahad mbàkke tudde na ko doom cheikh abdul xaadir mbàkke tudde na ko doom cheikh murtada mbàkke tudde na ko doom sëriñ soye bu mbàkke tudde na ko doom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ko tudde doom cheikh si toppan ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ñu ci bare bare itam tudde nañ ko doom yoonu murit ñu ci bare bare bari tudde nañ ko doom séqal wàllu diini ji itam ñu ci baree bari tudde nañ ko doom cheikh dul faadal mbàkke yu nekkul jullit itam bari lool moo tax cheikh mamadul faadal mbàkke daana wax ne mënuma turandoo wu ne ma daggal mbootu waaye man naa turandoo wu ne moog waa waajuram ma tàbbal ajjana turandoo yu takk yooyu mu am moom cheikh dul faadal mbàkke ci ëttub xaadim rasul bi tax na itam ay turandoom wuutee lool tur yu ñu leen di wooye am na ay turandoom yu ñuy wooye muhammadal faadal am na ay turandoom yu ñuy wooye sëriñ fàllu am na ay turandoom yu ñuy wooye elaaji am na ay turandoom yu ñuy wooye seex ndindi am na ay turandoom yu ñuy wooye faadel am na turandoom yu ñuy wooye baayu mbeen am na itam ay turandoom yu ñuy wooye galas galas moom nag cheikh mamadul faadal mbàkke daana bañ ñu ne ñaare ku ñuy wooye galas nga nekk nit ku sawar bariwul ba tax na cheikh mamadul faadal mbàkke daana sàkku ci ay turandoom ñu bañ leen di leen wooye tur woowu di galas doomu soxna awa buso ba ka waajuram tudde woon ngeen gi mbindéef sallallahu taala alayhi wa sallam di cheikh mamadul faadal mbàkke mi ngi génn àdduna bisub talaata fukki fan ak benn ci rakkaat ji gàmmu ci atum 1388 ci gàddaay gi talaata fukki fan ak benn ci weer wi di rakkaat ji gàmmu ci atum 1388 ci gàddaay gi dëppoo muy mardi 6 août 1968 mardi 6 août 1968 ci këram gi nekk nag ci Touba wuf jumaay Touba ji heure ba moo di 18 h ñu denc ko ci fajarug àllarba ji fukki fan ak ñaar ci weer wi di rakkaat ji gàmmu ci atum 1388 ci gàddaay gi àllarba fukki fan ak ñaar ci weer wi di rakkaat ji gàmm ci atum 1388 ci gàddaay gi dëppoo muy mercredi 7 août 1968 mercredi 7 août 1968 rakkam ja sëriñ Souhaïbou Mbàkke moo ko taxawu moo ko julle ñu jébbal ko boroomam ci penku jumaa ji ay atam moom cheikh mamadul faadal mbàkke toll ci juróom-ñett fukki at ak ñaar cheikh abdul ahad mbàkke moo ko wuutu ci toogaayu xaadim rasuul ay xalifaam nag ñii la tëdde moom cheikh mamadul faadal mbàkke kam tudde woon cheikh mamadul moustapha mbàkke di sëriñ moodu moustapha mbàkke falilu moo ko wuutu ci le 7 août 1968 ba le 14 février février l'an 2000 ñaareelu xalifa cheikh mamadul faadal mbàkke mooy kam faye woon rakkam ja cheikh mamadul lamin baara mbàkke ibnu xaadim rasuul di alaaji baara moo ko wutu ci le ba le 30 juin 2010 le 30 juin ba nëgëni kam faye nijaayam ja di sëriñ mbàkke buso ñu gën koo xam ci sëriñ abo mbàkke moom cheikh mamadul faadal mbàkke moo ko wutu ci le 30 juin 2010 ba nëgëni ñu koy ñaanal moom sëriñ mbàkke buso dañ gën koo xam ci sëriñ abo mbàkke yàlla na suñ borom guddal aw fanam te te yàggal ko nag fi toogaayu waajuróomu boobu di cheikh dul faadal mbàkke suñ boroom taxawu nag ay rakkam ak mbooleem ñum séqal cheikh mamadul faadal mbàkke ak nuñ ci mën a bokkee cheikh mamadul faadal mbàkke nag am na bés bu ñu koy fàttaliku muy lu ñu tudde ak màggal moom ci boppam nag moo ko daa màggalal boppam ginnaaw bu mu ci laajee waajuróom wa soxna awa buso mu di ko xamal ne daal ci bisum ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weer wi di weeru rajab ci nga feeñ jamono cheikh mamadul faadal mbàkke nag daana ko màggale ci kër gi ñu tudde kër sëñ aafiye ñang foofu la waajuróom nekkoon di soxna awa buso def bu xëyee yendu ko sëriñ aafiye ñang ziyaare magam ja ba ngoon mu gonte fa dem daaru salaam gi mu feeñe jamono fanaan fa màggal na ko nag ay ate ate at ci nekkinam moom cheikh mamadul faadal mbàkke waaye nag ci at mii di atum 1964 nag la fi magam ji ko di sëriñ aafiye ñang cheikh mamadul faadal itam ay atam maytu ko itam muy jaabante doomam ja di sëriñ moodu maamun ñang nag dem laaj ko ndigal ngir di ko roy nag ci bis boobu mu daa ñëw ci waajuram sëriñ aafiye ñang cheikh mamadul faadal mbàkke itam joxoon na ko ci ndigal ngir sëriñ moodu maamun ñang bis ba sëriñ Mamadou Mamoun Niang nag wéyal na ko ba ci atum 1970 ginnaaw bu fi Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke bàyyi ko nag ci atum 1968 ci atum 1970 nag la ko taawam ba di sëriñ Modou Moustapha Mbàkke Falilu woote kon nii màggalu Kazu Rajab toll sëriñ Modou Moustapha Mbàkke Falilu la ba nëgëne nag ñi ngi koy màggal ci bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi di weeru rajab am na nag yeneen bis nag yuñ koy fàttaliku ndax lu mel na ñeen fukki guddi Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke itam ñi ngi koy màggal ci dëkk bu tudd àccu ndax ndayam ji ñu tudde sëriñ Ceerno Buso itam mi ngi koy fàttaliku am na itam ay bés yu ñu jagleel Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ndax lu mel ne cantuk sëriñ Fàllu Mbàkke ak ay journée culturelle Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke waaye daal màggal gi gën a fés ci Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke mooy Kazu Rajab di bis bi mu feeñoon jamono te moom ci boppam mu ko daa màggalal boppam ñuy ñaanti doomu Seexul Xadim ba kan doon wooye boroom mu am mu am boroom du am du am kañ doon wooye bàyyu mbend Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke yàlla ñu ko yàlla fayal te yokk ay leeram ci barkeem njabootam gim fi bàyyi ak nuñ ci man di bokkee lii di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci daraja yi muhammadal faadal amiin muhammadal faadal amiin muhammadal faadal amiin